boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi arrahmani arrahim sallallahu wa sallam ala sayidina sunu kilifa yu baax yi teew ci jotaay bi mbokki jullit yi yëpp ñoo ngi am mbégte di teew ci jotaay bi sant yàlla bu baax mi ñu jàppandal ñu fekke woon ko léegi ni si daaw te yàlla dogal ñu fekkewaat ko ren ca fekk gi it ak daal ñoo ngi ziar ñëpp ci weeru tedd yi di weeru koor yi nga xam ne ñu ngi fan yu mujj yi ñu ñaan yàlla mu jàpp daal ñu eggale ko ci jàmm ak salaam te mu nangu jàmm daal yëpp nuyoo bi ak siyaare jiital Cheikh di ñaan yàlla mu may ko du fan may ko wér jàppandal ko naal yëpp sotti ci sago ñu ànd kook moom ci ñun ñëpp ñu maase ci am ngërëmul sëriñ lii benn jotaay la rekk ci jotaay yi kuréel gi ñuy tudde académie yitu minan baaxoo amal at mu jot ci weeru koor bi bi mooy ñeenteel bi te it mooy bu mujj bi ci weer ñu di ko def aljuma ju jot ci aljuma yi weesu seet bi ngeen ni am na ay tomb yu ama am solo yoo xamante ni ay xam-xam ñu ràññee leen ci seen taxawaay ci biir dëkk bi ak ci biir lislaam bi yépp rek ñu waxtaane ko bokk na ci moo moomeel li ñépp bokk cim réew ci nattuwaayu lislaam mooy lan yan melokaan ak yi ci aju woon yëpp gis ngeen ni waxtaane nañ ko ci aljuma ju njëkk ji aljumay ñaareel ji ñu waxtaane ci mbokki taalibe murit yi nekk ci biti réew ak jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci saytu seeni njaboot ndax jafe-jafe yi yar ak jafe-jafe yi barab muy culture bi foofu mu nekkoon ci ñaareelu aljuma bi ñetteelu aljuma bi wooteeb sëriñ bi muy yoonu murit taxawaay yi ci nit ñi war a taxaw ak naka lañu war a toftale taxawaay yi li ñu tudde ay aw awlawiyat wala les priorités bii nag mooy ñeenteelu jotaay bi fii nag sëriñ Maxtaar Seck moo fi baaxoo nekk di ko taxawoo ci anam bu mucc ayib bu ama ama am solo macha allah yàlla dogal nag tey mu am ngàntul lu jàmm ngàntul jàmm rek la nag lu ko dab ba tax mënu fee teew ñu sàkku ma jéem ko fee teewal kon tey lii mooy jotaayu ñeenteel bi doon it jotaayu tëjt bi mu doon jotaay boo xamee ni nag incha allah dana am solo dana am solo ndax ñi koy taxawee kàddu ñu fi yëkkati waaye dana am solo ndax kiñ koy tuddee ñu ci teral niñ ko baaxoo def ci àjjuma ju mujj ju nekk kenn ci boroom xam-xam yi yoon wi ci ay taxawaayam ci ab liggéeyam mu ràññee ko ci ñu di ko sargan tey nag ki ñu tànn ki nga xam ne kuréelu académie tu Minane moom la tànn ngir teral ko at mi mooy sëriñ Moustapha Lo mu sëriñ Ndam Abdourahmane Lo njaboot gi ñu ngi fi danañ bokk ci ñuy jël kàddu waaye laataa ñoom danañ jox kàddu gi sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mi nga xam ne moo jiite li ñuy tuddee comi euh, comité scientifique bi mooy kuréel bu ndaw gi nga xam ne mooy taxawul euh, programme yeeg lépp lu jëm ci liggéey bi dana wax ci taxawaay bi nga xam ne sëriñ Moustapha mu sëriñ Ndam amoon na ko ci wàllu xam-xam ci tasaare gi ak yaatal gi rawatina sax ci yoonu murid bu ca jógee nag ñu jox kàddu gi njaboot gi seen délégation bi ñu ngi fiy teew ñu wax ci ci turu njaboot gi yépp bu ñu ci jógee ñetteelu kàddu gi ñu jox ko Serigne Cheikh mu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo jiite académie yitu Minane ñuy fàttali nag ni taxawaay yi yépp ñuy taxaw ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké lañ koy defee ci njiitul sëriñ Abdoulahi Mbacké mi nga xam ni mooy ilimaanu barab bi ñu nekk waaye ci taxawaayu sëriñ Cheikh moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu jiite académie tu Minane kon xam naa euh, noonu incha allah noonu la kàddu yi nar a euh, bu soobee yàlla laataa ñuy egsi ci tëj tëj xam naa kon ndegam dañoo xaw a yéex a tàmbale tuuti dañuy jox rek sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mi nga xam ne moo jiite comité scientifique bi mu fësal lenn ci taxawaayu sëriñ Moustapha mu jëm ci xam-xam ak yaatal eh, liggéeyub lislaam bi ak liggéeyub Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa noo ngi nuyu mbokk yi fi yépp te di ci jiital kilifa yi di tënk rekk ci lu aju ci sëriñ Moustapha Lo moom sëñ Ndam Abdourahman Lo moom mi nuy sargal tey ci bis bi koor yépp yetti àjjuma yu njëkk yi dañ ci def ay waxtaan waaye ju mujj ji nag dañ koy jagleel sargal kenn ci ñu am taxawaay ci xam-xam ndax académie bi loolu daa bokk ci liggéeyam ab jaayisa lañ ko doon tudde boo xam ne dañ koy jox ku am taxawaay ci wàllu xam-xam ren nag ñu tànn sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ kàddu gi kon dañuy tënk rek lu jëm ci taxawaayam yooyu rek ndax mooy wane li tax nu tànn ko loolu rek lañ ci jublu waaye duñ mën a wax lépp lu aju ci ak dundam sëñ mustafa liñ ko xamee kon doomi sëñ Dame Abdourahman Lo la sëñ Dame Abdourahman Lo mi ñëpp xam di jàngalekat bu mag boobee jàngal ñu baree bari ci njaboot gu njëkk gi ci yoon di kenn ci magi taalibe yi doonoon ku jege sëñ bi itam ku sëñ bi jege lool boppam moom sëñ ndaam sëñ Moustapha nag mi ngi feeñ ci weti 1935 kon ci xarnu bee nu génn ci 1935 jamono yooyu daal ci lay feeñ kon way juróom mooy sëñ Daam Abdourahman Lo waaye way juróomu jigéen it mooy soxna musli soxna muslim moom sëñ bu mag soxna muslim yi bokk sëñ sëñ Murtada lépp soxna muslim itam doonoon boroom xam-xam moom it kon ñaar ñooñ ñoo ko seq ci doon ay way juróom am njàngam moom sëñ Moustapha nan la deme sëñ Modou Moustapha miñ ko tuddee moo ko dalal sëñ Modou Moustapha lañ ko tuddee moo ko dalal itam waaye bi mu ko daralee ba noppi am na maamam ju ñuy wax soxna Mbéye Jóob jàngal na ko alxuraan loolu tam gis nga nu bàyyi ci xel soxna yi dañ daan jàngale alxuraanul karim ci lu yàgg koon ci yoon wi yëmuñ ci daa ko jàng rek waaye dañ ko daan jàngale itam ginnaaw ba nag la dem nag daara daaree sëñ Mor Mbay sa ca njaareem fa la jànge dëgg dëgg nag alxuraan ba mokkal ko rafetal ko bind ay kaamil yu bari loolu waxees naa ne ci diggante ay 1943 ba 1948 la ci dig digal boobu daal ci la jàngal alxuraanul karim bu dee wàllu xam-xam nag njàngum xam-xamam moom mi ngi ko tàmbalee ci sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana mi ñu xam moom itam ñi jege woon sëñ bu mag bi lool am taxawaay bu mag itam ci xam-xam ci yoonu murit sëñ Maodo mi Jóob Dagana kon moo ko jàngal téere yi ñuy njëkk a jàng yi ñu faral di njëkk a jànge fii ci xam-xam ci wàllu diine ak ci wàllu làkku arab ba mu jàngee ci moom loola ba noppi nag mu dem ci sëñ Muhammad Dem moom itam gis nañ ko xam nañ ko nim toll ci yoonu murit ci wàllu xam-xam ñoom ñaar ñëpp ñu nekkoon njaareem kon njaareem la jàngee alquran waaye fa la jàngee xam-xam itam ndax sëñ moom la meen Jóob Dagana fa la nekkoon sëñ Mouhamad Dem itam fa nekkoon sëñ Mouhamad Dem kon ci moom la jànge téere yi gën a féete kaw ci ñuy faral di jànge fii bim noppee nag kon mooy jàng na liñ daan faral di jàng fii ba noppi ci bi mu ci noppee nag ci la laxas ci la laxas nag dem gànnaar ngir xam naa man faa jëre yeneen xam-xam yoo xam ne xëy na tasaaroo wutoon fii ba mu fa demee itam mu dem ci ay woroomi xam-xam yu mag a mag jànge ci ñoom loola ci 1951 lay tollool ci misaal rek ñim jànge ci ñoom te ñuy ay woroomi xam-xam yu mag bokk na ci Cheikhul Muxtaar ibnu sayidi ibnu sayid ibnu ablul alxaaji ak muhammad abdullah ibnu ali ibnu ubaydirahman alalawi ak alcheikh muhammad abdullah ibnu albashir almaliki attandaxi yooyu ay misaal la ci waroomi xam-xam yu mag yum jàngee ca gànnaar kon bu dee wàllu xam-xam kon waajal na ci boppam tàmbale ko ci alxuraanul karim teg ci nag xam-xam yi nga xam ne yiñ baaxoo jàng ci biir réew mi la ak sax yi nga xam ne gànnaar lañ daan dem ngir man koo am wala ngir mën koo amee nañ ko bëggee waaye li firndeel xam-xamam moom sëñ Moustapha kon li mooy am njàngam waaye li firndeel xam-xamam ginnaaw njàng mi nag mooy lu baree bari lu mu bind bind bind na lu bari ci wàll yu wuute waaye ay waxtaanam moom kenn mënu koo takk yooyu yëpp nag dañuy wane rek ab xam-xamam fan la tolloon am mbindam ak waxtaanam yoo xam ne kenn mënut koo takk bi mu waajalee ba nopp boppam ci xam-xam ba am ca lii mu ca am dafa soobu nag ci liggéeyal diine ji ak liggéeyal yoon wi muy liggéey lislaam jépp waaye gën cee beral beral loxo nag yoon yi nga xam ne ci la bokk gën a jëme ab liggéeyam it ci xam-xam ak gëstu bu yoon wi gëstu mboorum yoon wi mboorum yoon wi mu di ko gëstu te mboorum yoon wi dëgg-dëgg mooy jaar-jaari sëñ bi rek ci la defe lool foog nanu ne moo ko njëkk a def te mooy jóg dem ba Gabon topp fañ fa yóbbu sëriñ bi fépp mu dem fa ñam fa fekk mu waxtaan ak ñoom ñenn ñi fekke woon nañ ñenn ñi nekkoon nañu ñu fekke woon ñoom mooy ñu fekke woon ba fa sëñ bay nekk mu waxtaan ak ñoom def ci gëstu yaatu yoo xam ne diggante 1970 ba 1974 ci la doon taxaw ca loola loola manees naa wax ne moo ko njëkki mooy bunt boobu kon moo ko ubbi buntu gëstu bopp doo toog fi nga toog rek waaye da ngay dem ba fa biir ya doon xewe nga laaj ña fekke woon ak ña nekkoon ak ña fekke woon muy kon gëstu yoonu sëñ bi ca Gabon te dem defe ko foofa taxaw ca béréb yañ ko yóbbu loolu mel na ne moo ci jiitu ku ko def ginnaaw bi moo ubbil moo ko ubbil bunt noonu moom sëñ Moustapha la nekke woon kon delluwaay delluwaay ci mboorum yoonu murit muy kon rek ci jaar-jaar sëriñ bi mën naa am li ko ko mayit yaar la lenn li mooy moom bëgg-bëggu boppam ak euh, xeluk boppam ci gëstu daa doonoon ko bëgg gëstu loolu ak wàll la waaye wàll gi ci desit ko ci gën a dimbale mooy lim nekkoon ak ñi fekke woon bu dee fii ci réew mi yàlla daa dogal mu nekkoon ci biir ñu fekke woon ñii di ay magi taalibe tudd nañ fi sëñ Mat Dem tudd sëñ Mouhamad Amin jóg waaye sañ Bachirou ci la ñi nga xam ne dañoo fekke woon te mu nekkoon ak ñoom waaye waa sàq yit ci la ci lañ te moom it daa nekkoon ci seen biir dafa màgg ci seen biir ba tax loolu lépp dana ko may kon mu mën a xam lu bari loo xam ne keneen ku nekkutoon ci anam googu mën na ko bañ a xam mu fekk si nag bëgg-bëgg boppam bu mu am ci gëstu taxawaay boobu kon am na ko ci yoon wi waaye noonu itam la amee taxawaay ci lislaam ji ci boppam lislaam jépp loola moo waral mu séqoo nag ñu bari ci kilifa yi lislaam yi ci réew yépp ba tax ay daje ak waxtaan yu ñu daan def ci àddina sépp te di jullit ñi di ko def da ca daan bokk bokk na ci daje yu bari ak waxtaan yu bari yu ñu daan def ci àddina si te jullit di ko sépp waaye bokkoon na it ci ay kuréel kuréel yoo xam ne dañ koo samp ngir mu yittewoo mbirum jullit ñi bokkoon na ci kuréel yu bari ci kuréel yooyee loolu lépp yittewoo gum yittewoo mbirum jullit ñi moo ko waral kuréel ya mën nañ cee wax rek rabitatul islaam yi ñoom defoon nañ ko mu teewal leen fi ñuy wax Afrique gi féete ci digg bi muy Afrique centrale mu nekkoon Gabon euh, teewal leen foofu waaye rabita boobu am na kuréel boo xam ne kuréelu xam-xam la buy gëstu ci wàllu xam-xam ba yu yees yi xew ñu koy mën a génneel ay àtte ci lislaam kuréel boobee bokkoon na ca muy al majlis al fiqhi Égypte xam na nu ni mu bare ay tarixa daa bari tarixa lool waaye am nañ kuréel bu mag bu leen boole ñoom ñëpp kuréel boobee tànnoon nañ sëñ Moustapha mii def ko mu ku leen di teewal ci Afrique gi féete sow jant ak Afrique gi féete ci digg bi yooyu yëpp ay misaal la rek ci ay kuréel yu mu bokkoon waaye ci yo liggéeyal liggéey bu mu liggéeyal yoonu murit itam duñ ci euh, fàtte taxawaay bi mu amoon ci xasiida yi yi ñuy bind di ko tasaare mu amoon taxawaay ci di di ci taxaw bañ koy topp ba ko tasaare ñu di ko topp ba lañ ko móol buñ ko toppee door koo móol door ko tasaare loolu amoon na ci taxawaay boobu ci jamono suñ fàllu la tàmbali woon waaye di wéy ba jamono yi sëñ Abdul waaye nag am na taxawaay bu ràññiku nag ci wetu nijaayam di sëñ Murtala mi nga xam ne moo wéy juróom ñoo bokk lépp soxna muslim daanaka bim mu noppee cim njàngam rek te fekk jamono yooyu sëñ Murtala yi doonoon nu muy taxawale jàngu bii mu bëggoon a taxawal muy al azhar dafa daal di ànd ak moom nag di dem fu ne ci àddina si fépp fu ñu yaakaar ne bu ñu fa demee rek am fa ku leen jàppale ñuy ànd di fa dem di wër ci réewu arab yi fu ne ñu dem fa daanaka e, kon foofu la ko féete woon noonu la ko ànd ak moom ba bi daara jooju jëmmoo école bi ci njëkk jëmm muy bii nekk ci ndaam biñ koy ubbi ci 1975 booba sëñ Moustapha mi ngi ànd ak sëñ Moutala ci noonu ba euh, biñ ko ubbee sax moo ko jiite woon jiite na ko ay at ñu door ko jox ñeneen sëñ Moutala kon noonu la ànde woon ak moom mu wóolu ko ca jamono yooya ak ginnaaw jamono yooyu bi mu tàmbalee di wër àddina si itam nga xam ne demut ngir seet ku ko jàppale ci wàllu jàngu bi waaye day dem nag ngir tasaare lislaam ak ngir njabootu julliti Sénégal yi fa nekk mu nos leen bañ mën a dund seen diine mën a sàmm seen diine mën a sàmmal seenu njaboot seen diine jamono yooyu itam day ànd ak moom ginnaaw yàlla mayoon na ko mu doon ku leer aw làmmiñ moom sëñ Moustapha sëñ mu sëñ mu sëñ Murtala da ko daan waxloo ci lu bari lu masaan a bëgg a jottali nit ñi daana ko ko ko ko waxloo ngir wóolugum ko woolu wóolu gum ko doyloo ak itam leeru làmmiñ wu ko yàlla wu ko yàlla mayoon loolu daal mënees na ko tënk foog naa ne ci jaar-jaari sëñ Moustapha yi ci aju ci xam-xam rek bañ xam ne kon buñ ko tànnee di ko sargal ngir taxawaayam ci xam-xam foog naa ne ku nekk dana xam ne loolu lu jaadu la loolu rekk lañ jublu ci tënk bi euh, sëñ Cheikh foog naa ne nit topp ci waxtaan wi mën na ca topp kon waaye lii daal mooy leen tënkoon ci jaar-jaari sëñ Moustapha ak ay taxawaayam yu aju ci xam-xam ci biir yoon wi ak ci biir lislaam ji bañ xam ne kon bu nu ko jagleele bis bii di ko ci sargal lu mu yeyoo la maa ngi jéggulu ñépp di sant ñëpp wa salaamullahi aleykum wa wa barakaatu jërëjëf kàddu yooyu yëkkati ni mu ko waxee noonu la le yillay tànn gi rek la doon leeral su ko defee am na ci yeneen fànn yoo xam ne xëy na njaboot gi du ñàkk ñu dellusi si ci gën cee taxaw waaye yillay yilla ji tax kuréelu académie ti minan tànn ko rek la bëggoon leeral ci anam bu tënku sax la ko def kon jërëjëf Euh, kàddu yi leer na ñii ñi nga xamante laata ñu yàgg jàll bu ñaareel bi nag ñaareelu kàddu gi euh, dañuy tudd euh, ñenn ci ñi fi teew ci njaboot gi sëriñ Xalil Lo mu sëriñ Cheikh Lo mi ngi fi sëriñ Xaadim Lo mu sëriñ Cheikh Lo mi ngi fi sëriñ Muntaka ah, wala Moustapha loo mu sëriñ Moustapha loo mi ngi fi sëriñ Muntaxa Muntaxa loo mu sëriñ Moustapha loo mi ngi fi sëriñ Moustapha loo mu sëriñ Mouhamad Lamine loo mi ngi fi sëriñ Saalihu loo mu sëriñ Moustapha loo mi ngi fi sëriñ Saalihu loo mu sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh loo mi ngi fi sëriñ Bachiru loo mu sëriñ Bachiru loo Abdourahman mi ngi fi sëriñ Abdourahman loo mu sëriñ Bachiru loo xalifa mi ngi fi sëriñ Moustapha Lo mu sëriñ Bachirou Lo Moustapha Abdourahman mi ngi fi soxna Assu Gaawaan Lo mu sëriñ Xaadim Lo Moustapha Abdourahman mi ngi fi sëriñ Moustapha Mbacke mu soxna maam Mbéye Lo Moustapha mi ngi fi ñooñu euh, muy ñenn ci ñi fi teew ci euh, turu njabootuk sëriñ Moustapha Lo laataa ñu leen di jox kàddu gi nag dañ leen di jox yaakaar naa ni diplôme bi ñu nangu ko ci turu euh, académie Minane bi nga xamante ne sëriñ mu Cheikh mu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi moo ko jiite ak ñi koy jàppale ñëpp rawatina sëriñ Mountakha moom sëriñ Mamor loolu lépp it ñu di ko def ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak ci njiital. sëriñ Abdoulaye Abdoulaye Mbacke mi nga xam ne mooy ilimaano jumaa ji ñu nekk kon xam naa euh, dañ leen di jox lijaasa bi nga xamante ne moom la ñuy jox njaboot gi di ko feeñale yéeni sargal euh, sëriñ Moustapha bi nga xamante ni moom la ñuy sargal tey ci jotaay bi ca académie tu baaxoo koo def at mu nekk ci weeru kor wi ci àjjuma ji mujj ci ay jotaayu xam-xam teewaayu mboolem membre kuréelu académie Minane rawatina ci njiitul euh, Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wahab mi nga xam ne moo jiite comité scientifique bi kon diplôme bi lijaasa bi moo nekk noonu muy feeñal yenn rek ak sargal jëme ci borom xam-xam bu yi nga xam ne moom lañ ko jagleel muy Serigne Moustapha Abdourahmane Lo loolu mooy mooy jotaay jottalen jottali lijaasa bi ngir terale ko walla feeñal yéene eh, sargal boroom xam-xam yi ca jotaay bi Serigne Moustapha Abdourahmane eh, lañ ko jagleel ren yàlla na yàlla dolli yërmande ci moom yërëm mboolem jullit ñun ña fa nekk ñëpp ci barsax eh, taxawu njaboot yi ca sottal naal yi ci ginnaawam ci lépp te aba egg ci moom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 ñoom lañu fekk ci barab bi ak wayjur ak kilifa yi nga xam ne moom lañu àndal itam fekk si leen noo ngi ñoo ngi nuyoo ci turu kilifa yooyu di ko teg ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci barab bi waaye mbooloo mi nga xam ne itam ñooy saytu académie bi yépp ak mbooleem koo xamante ne bii teew na fii ngir xam-xam ndax jataay la boo xam ne jàpp naa ne ku ci teew ku ci nekk xam-xama la yëkkati akuk mbaax loolu nag ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo dige aw yiw ci séqi jéego jëm ci lu baax kenn ku ne ci noonu ak ñi amoon yéene ñëw te ñëwuñu <clears throat> yàlla na yàlla fay leen yi woowe di siyaara bu baax sëriñ Cheikh ak ñi mu àndal liggéey bi waaye ci kàddu suñu kilifa yi toog muy sëñ xaadim moom sëñ Cheikh ak sëñ Ibrahima mi ak seen rakk yi àndal muy sëñ Muntaxa moomu ak sëñ Moustapha am Cheikh Mouhamadou Lamine Mele ak sëñ Basiiru mii itam di doom ci sëriñ Basiiru moom daam Daa Abdourahman sëñ Muntaxa itam di cëraat bu bàyyi koo waat ci kër sëñ Moustapha delluwaat ci itam barab bi loolu itam moom it di beneen cër ndax sëñ Moustapha Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamadul Moustapha lañu ko tudde waaye nag li ëpp ci ci ci ci dundam <coughs> gannaaw Cheikh Mouhamadul Mourtada ci njabootu sëriñ bi jàpp naa ne Cheikh Mouhamadul Bachir la ci gënoon a jaxasoolaat ba su ma juumut dëkkub Cheikh Mouhamadul Bachir bi nga xam ne moom la njëkk a sanc moom la ko rafaatale su dee juumuma muy Daaru Salaam Kayal daaru salaam kayal cheikh mouhamadul moustapha moom cheikh mouhamadul bachir dawal na otom ba agsi fa fekk fa cheikh mouhamadul muntaqa mii ak sëñ saalim booba ñoo fa nekk ca daara ja di jàngale mu di laaj di leen laaj ba yeggale ne leen barab bii day fi laa feeñe ki mën a jël nag lu mel noonu rafaatale ko sa sa sa doom rafaatale ko itam euh, sa sa sa taalube kooku kon am na lu ngeen seqoon lu xóot loolu itam jàpp naa ne la ciy firndewaat itam sëñ Moustapha doomam ju mag itam Cheikh Mouhamadul Bachir la ko la ko dippe loolu itam itam day firndeelaat itam ak jaxasoo beneen bi ci toppaat itam li muy gën a firndeelaat itam rek yoroon na ñaar ci njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir ñaar ñoo xamante ne dafa yor kii mu wàcc ñu joxaat ko kon ñett kon nee ñett waaw gis nga kon loola kon ak jaxasoo mënu ko weesu moom itam ginnaaw bi itam du ma xuutalaat wala du ma ñëwaat ci taxawaay yi ci wàllu xam-xam surtout ci jaar-jaar yi waaye xëy na lenn ci ay ay ay firnde rek ci li sëñ naa doon wax muy bim mu jàngee ba noppi li jëmmal xam-xamam loola nun ñëpp wala ñu ëpp ci njaboot gi toog nañoo moom mu xamal leen ni leen kat bi muy jógee Mauritanie bi mu jàngee ba noppi ba war a ñibbisi ndax booba njàng diraasa académie amutoon da ngay jàng ba pare rek ñu ñu ñu ki lay jàngal bindal la benn ijaasa wane ne téere yi ñu fi jàng yu nekk mën nga koo jàng waaye moom nee na ki ko doon jàngal da koo jox benn téere te téere ba mu ko jox itam ci mantiq lay wax maanaam téere mantiq la bopp ñi jàng wàllum xam-xamu mantiq miin nañ ko ci barabi jàngukaay yi muy sullamul mu raw naq cheikh abdurahman alaxdar yi def ko muy téere bu ama am solo boo xam ne ñiy jàng lu jëm ci wàllum euh, mantiq wala falsafatul islaamiya miin nañ ko lool ci tàmbuli muy téere boo xam ne itam ñi jaar Mauritanie itam miin nañ ko ci jàng ko foofa nee na bi mu noppee da koo xamal ne ko daal dama bëgg fànn yi nga doon jàng néew ko charxul ma téere bi da xam nga bu nekkoon charxu ko mën na koo charxu ci fànna gi waaye da koo xamal ne ko fànn yi nga jàng ci biir barab bi laa bëgg mu feeñ ci téere bi na nga ko sharx waaye boo paree fànn yi nga jàng yépp na feeñ ci biir muy foo ci am foo xam ne nukta balaaxi la na génn loo xamante ne bii nukta boo xamante ne bii ci wàllum usulul fiq lay wax na génn lu ada nukkat adabiye yëpp itam foo ci ex luñ ci war a mën a leer itam na génn damaa jëlale nag li nga xam ne moo tax a jóg téere bi muy ilmul mantiq nee na te loola bam ba mu ca noppee ci la ci la ko sëriñ ba xamal ne ko nag daal am nga ijaasam mën a jàngale xam-xam yi nga fi doon jàng mooy itam loolu kon mooy tolloog léegi bu doon ci programme yi bees yi booy génn dañ lay jox benn thème wala ñu jox la téere wala ñu jox la leneen nga war ca bind moom itam kon loolu firnde la ci gis naa ak xasida ama am solo goo xam ne mook sëñ saalix moom si Cheikh Mouhamadul Moustapha ambassadeur ñoo ko ñoo ko seqoon booba sëñ Mbàkke soxna Lo moo doon dem gànnaar ñu di ko dénk fekk boobu ñu dem bay ñëw ñu jàng ba ñëw kii day wax benn ajj kii wax sadr bi noonu lañ ko waaye ba xasida gi jeex muy xasida gu ama am solo xëy na ku ko soxla bu paree am nañ ko ci ci ci ci ci PDF waaye loolu yëpp day firndeel rek bu dee itam bëgg boppam gi sëñ Cheikh naa bëgg boppam boobu nag duñ ko firee bëgg bopp bu yëg yëg li nga doon bëgg sa bopp mooy fonk sa ndono danañ ciy nettali ne am nay jamono président Léopold Senghor bëggoon koo def ambassade bëggoon koo def ambassadeur ci yenn barab yi waaye booba lam ko xamal mooy sémbu naag sëñ Mourtada ab liggéey boo xam ne mënuma ko fee bàyyi di dem loolu itam mooy bëgg gi boppam mooy kon doomu aadama bi nekkati liggéey bi muy def li ci ëpp solo na ko tàmbulee ci boppam loolu li ñuy wax sharaf tey loolu boo xamee aw dox yi nag moom danga xam ne léppam sharaf la bëggoon la bëggoon a dund ak karaama ba keroog mu fiy jóge ni mu doon doxee rek dinga ko di ko xam xam ne yu baree baree bari yitteelu ko woon kon nag loolu ay kàddu la woon rek xëy na yu yu doon takmilaat ci eh, waxi Serigne Cheikhouna ginnaaw loolu itam kon mbokk yi nee nañ ñi ngi sant bu baax a baax ndax nag yàgg na fi bari na fii ñoo xamante ne yaakaar naa mën nañ koo bañ a xam te li ngeen def ci ci ci ci ci ci ci dekkalaat ko doonte jógu fi ci la bokk ndax jamono ni muy doxee ak fàtte ñoo ànd rawate na nag ci wàllum xam-xam baaxee su soo gis ñuy tànn nit ñoo xam ne ci xam-xam la yëngu di leen di leen teral ak di feeñal seeni mboor ak di feeñal seeni jëf loolu nag kon bu ñu amee mbooloo moo xamante ni bi ci liggéeyub Cheikhul Khadim bi ña ngay liggéey ca pàcc booba dana gën a soññ itam ndaw ñu sàggan ñi mel na man jàppoon ne wutum àdduna bi moo ëpp solo dana tax itam lañ jàppoon ci luñ gënoon a man luñ gënoon a jàpp ci fonk xam-xam danañ ko gën a fonkaat ndax bu ñu xamee ne am nañ bis boo xamante ni bii ñu liggéeyal diine liggéeyal lislaam liggéeyal yoon wi daañu leen ciy fàttaliku bu boobaa dana leen dana tax ñu gën a góorgóorlu comme niñ koy defee ci yeneen métier yi nga xam ne wax dëgg yàlla ci àdduna rek la yam kon mbooloo mi am xalaat boobu njaboot gi nee nañ li ko tàmbalee ci sëñ Moustapha mi ngeen xam ne moom ngeen mujj jox tur wi ba ci ña ngeen jiitaloon ak ñi ngeen di xalaat ñëpp itam am nañ ci mbégte lool lool lool tey ñaan itam jëf ji ni ni ni seenub liggéey réye ñoom ñi ngeen di feeñal seenub liggéey yàlla na yàlla fay lu kawe njortu ci ci ci xalaatin wi jëf ji Euh, xam naa bi ñuy wax itam la sëñ Moustapha moom sëñ Mahmoud ak moom sëñ da Abdourahmane itam teew mooy kon daanaka li ci ëpp ci buntu kër yi ñu ci bari teew nañ ci ci ci jataay bi moo magam sëñ fàllu waaye ki sëñ bi doon taxawu léegi ci lañ ànd ñoo kenn moom daf ca délégation boobu dem kon daal xam naa ne kàddu cant mënut a weesu cant euh, su fekkente ne am nañ lu ñu bàyyi itam ñu xam ne ndaw lool xel ma des na xam-xam ba itam yëggut fa mu war a yegg te kàddu gi itam bett na ndax jortoon nañ ne rek dañuy ñëw buñ ñëwee xëy na teew ci jataay bi waaye sëñ Ibrahim mii lañ bëggoon mu jël kàddu moom itam mu joxaat ñun nañu nañ ko jàllale muy sëñ xale kon daal bu fekkente ne fàttewuñ dara ñi ngi sant ñëpp même sëñ Abdou Samad moom sëñ Fall moom sëñ Cheikh mooy itam mi ngi fi xëy na bi may jàllale léegi dama koo fàtte tudd ak sëñ Cheikh moom sëñ Xaadim bi itam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon loolu day wane rek ak jaxasoo bu jaxasoo la waa kër Cheikh Mouhamadul Bachir ñu wax ne sax bi ñuy ñibbi si sax nga jëlu si jóge gànnaar ñoo ko ànd jamono bi ñuy taxawal daare Cheikh Mouhamadul Mourtada bi ak Azhar Chérif moom Cheikh Mouhamadul Mourtada bi ñoo ko ànd kon dafa euh, bokk luñ bëgg ñoo ñoo bokkoon tamit di ci dox yàlla dogalee moom mu jiitu yàlla mu yàlla yërëm te nangul ko ay jëfam ndax liggéey bi mu doon liggéey ci xam-xam sadaqa jaariya la dafa bokk ci yi nga xamante ni euh, meññeel boo xamante ni du gaaw rag yàlla bu mu naree jël da koy jàppandal xeeti jëf yu mel ni ci xam-xam ni ko nit ñi jokkalante ci seen biir ba keroog saa di taxaw ku ci def dara te yàlla tax eh, dafay nga ca mën a topp ci eh, ngërëmul yàlla kenn xamul nu mu toll loolu it lu am am solo kii fi nekk it incha allah du mu taxaw Eh, nekk ba léegi ci waaye te yàlla na fi gën a yàgg te ànd ak wér moom it gis nañ taxawaayam bëgg-bëgg boo boole woon ba léegi ñu ngi ci moom ba tax mu eggalee liggéey bii ñuy tudde université te mooy mu jamoon si xamatul xam loolu firndeel ci ni lu amal am solo la li am solo mooy jëf ju baax yéene ji rafet li ci des fay gi moom ci loxo yàlla la nekk ndax it la muy fay na mu koy fayee moom rek moo ko moo ko xam kon ñoo ngi sant bu baax a baax ci kàddu yi rafet yi ngeen yëkkati eh, ngir indi ay leeral ci dundu Cheikh Moustapha Abdou Rahman bu boobu jàllee kàddu jiite kuréelu académie du Mina eh, ak ñu koy jàppale ñëpp te bokk na ci Serigne Moustapha Mbacké eh, Serigne Mbacké mu mu indi ay kàddoom ñu jox ma ko suñu ni suñ suñ saamu dama sa kàddu rek yow yaa war a jël kàddu daf man bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala xadimihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di njëkk a jot li nuyoo Seex Muhammadu Muntaqa mi nga xamee ne li ñuy def lépp ci ndigalam lañ ko defe waaye sax ci saytoom mënees naa wax ci saytoom lañu koy defe ndax li ngeen ko xamee te waxe ko léegi mooy académie bi dafa am Euh, lañu lañu lañu alamiya commission scientifique bi nga xam ne sëñ Cheikhouna Abdou moo ko jiite waaye gis ngeen ñu bari ñu fi teew ñoo xam ne ñoom ñëpp ci lañ bokk ci liggéey bi loo xam ne lépp luñ ñu dañuy bokk di xalaat di seet loolu jàpp ne buñ ko defee dana doon liggéeyal Sëriñ Touba waaye dana doon dana doon njariñ ci nit ñi ñu téye ko. ba di ko waxtaan di ko waxtaan ba benn bis ñu daje nag eh, tànn ci segg ci tànn ci waaye bu ñu ko seggee ba noppi dañuy dañ koy daal di yóbbu ci Seex Muhammadu Muntaxa won ko lépp ne ko lépp luñ luñ jàpp ne ki jubul rek na sa dëgg rek lañ ci lañ ciy déglu mu waaye lii li nga xam ne moo am ren jii nag buñ ko defee da ko rafetlu lool comme na mu ko daan rafetloo waaye ñoo ko waxee ni ko sëñ Moustapha moom sëñ Abdourahmane de la xalaatoon sax jox ko jaay Cheikh Modou Cheikh Modou mu ne ah kooku de moom yàlla dañoo boole lu bari te kon daanaka luñ ci wax rek day ñambaas waaye wax ngeen li ci ëpp solo wax ngeen ndax kenn werantewul ni bokkee Sëriñ Tuubaa waaye xañ ne wax wàllu xam-xam gi ngeen doon gën a génne waaye itam noonu nga wax itam ci diggante ak Cheikh Mamadou Bachir cee feeñ lool ndax jàpp naa ne tegoon nañu ci loxol Cheikh Mamadou ndax téere bi bi gën a mag ci liñ bind ci sëñ Cheikh moom moo ko bind waaye da nga cee da ngay gis ci biir téere bi mu di ci wax lu mel noonu waaw nga xam ne lépp lu mu daan def sax seet si Cheikh Mouhamadou Bachir da ciy laaj digal kon dañ koo joxoon Cheikh Mouhamadou Bachir waaye mu amoon ak moom ay jokkaloo ay relation yu dëgër Cheikh Mouhamadou bëggoon ko lool fonk ko lool waaye moom itam ku jàng téere boobu bind da nga xam ne ku bëggoon sëriñ Bachir la ku ko jàppoon la waaye ko doy la woon la kon ginnaaw wax yu bari wax nañ ci man moo tax ma ne woon wet googu naa ci gën a daa ci daa ci gën a dëgëral waaye bu loolu amee itam ci digganteem njabootu Seex Sëriñ Tuubaa gépp te sëñ Murtala bu dee ci wàllu ki da ko ci gën a jege ndax ginnaaw mook soxna mosul ñoo bokk lépp waaye jox gi ko joxoon Cheikh Mouhamadou Bachir kon loolu dajee feeñ loolu gis nga diggante ak Cheikh Sëñ Sëñ Sëñ Muntaxa moom moo jiitu woon gànnaar waaye Sëñ Muntaxa nettali na ko ay yoon bi mu demee ba jàng fii ba bëgg a yokk xam-xamam ci bitim réew gànnaar ne moom la ci waxtaanal bi ci waxtaanee ba noppi nag mu doog mu doog a tàggu seen Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh Mouhamadou Bachir jox ko ndigal ñu ànd dem dem ba ñu ñibbisi rek ñoo ànd ñibbisi yàlla boole woon leen loo boole woon leen lool ñu jaaxasoo di bokk waaye xaritoo gis ngeen li ngeen wax léegi sax Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Mourtala bi mu demee bay taxawal daaraam yu am solo yi yu rëy yi muy Azhar Serigne Mountakha mook sëñ Moustapha Lo booba daanañ ànd lu bëree bëri bokkoon nañ ci ñi ko doon ànd ak moom di ko ci liggéeyal di ko taxaw ba am na commission boo xam ne ñoom ñoo ci bokkoon nekk kon eh, lii buñ ko defee da xaj na dañu xaj na wàllu xam-xam ngi tax dañoo bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci wàllu googu ci wàllu eh, tasaare xam-xam waaye soññee ci xam-xam waaye nag bu dee ku mel ne si si suñ Mouhamadou Moustapha Lo mënuñ cee ñàkk wax ak dëgër gum dëgër eh, ak diggante bu mu amoon ak Cheikh Ahmadou Bachir waaye diggante bu mu amoon ak Serigne Serigne Mountakha moo tax keroog bi ñu ko waxee lii moom bég na ci lool ah, kon nag ñu xam ne daal njaboot gi ngeen xam ne suñ xool seet nañu ñëpp ci seen teewaay ndax suñu eh, soowam ñoo ko bokk di ñëpp ñoo ko bokk. waaye nag eh, cër bi di ngeen ko joxee di ngeen ko téye itam am nañ ci mbégte baax a baax kon nag ñi ngi koy tàmbalee ci Cheikh Mor Mountakha mi nga xam ne wax nañ mbégte bi mu ci am waaye ñun mbooleem académie bi am nañ suñu am nañ suñu mbé am nañ ci mbégte bu baax a baax xol seet na ci bu a baax kon nag ñu ngi leen di sant waaye di sant mbooleem nga xam ne naka jekk day ñëw di ànd ak ñun liggéey bi tey moom damay damay njëkk wax presse bi ndax damay leen di faral di. dañuy waaru biir moo tax leen damay faral di fàtt waaye kon tey ñoom ñoom laay njëkkee ñoom ñi nga xam ne liñ fiy def lépp ñoo koy tasaare ba ñu nekk fu ñu mën a nekk ci ci àdduna bi di ko mën a ànd ànd ak ñun ndax ñu baree bari jotaay dañ koy ànd ak ñun waaye maa ngi sant bu baax a baax yéen ñi nga xam ne waxtu wu nekk dangeen fi ñëw di ànd ak ñun liggéey bi ah, ah, kon waaw bu dee bu dee bu dee wàllu presse bi moom comme kayit bi may jox nii xam naa alxadimiya moom jàmbaar lañ ñoo jàmbaar lañ ci lool seen taxawaay waaw sëñ Mbacke ñu ngi di sant di Moussa Ndiaye mi nga xam ne moo tam jëwriñ la jëwriñ la fi académie waaye waaw siiwal siiwal timis istiqaama waaw mbooleem ñi nga xam daal dañuy ñëw di ko ànd ba ci rajo yi nga xam dañ koy jël di ko tegaat ak télévision yi nga xam ne sax ñoom itam dañ koy jël di ko tegaat ndax ku mel ne Touba TV dañ ko faral di teg ku mel ne Lamp euh, Lamp Fall dañ koy faral di teg ak yeneen rajo RTS ak yeneen rajo yoo xam dañ koy faral di ànd ak ñun di ko tasaare ñun ñëpp ñu leen di sant waaye ngeen xam daal yéen ñi nga xam da ngeen ñëw di ko ànd ak ñun waxtu wu nekk amuñ seen fay sant na ngeen lool lool lool suñu xol seet na ci baax a baax waaye fàttewuñ euh, mbokk yi nga xam ñoo nekk fii te xam na seen yëf la ñu di ko ànd ak ñoo ñun ndax seen sëriñ moom kenn du ko kenn du ko tuddaale waaye ndax waaye sëñ Fallou ko xam tudd ma ko jaal nga sëñ waaye ñoom ñëpp dañuy ñëw di ko ànd sëñ Moussa Moussa ñoom ñëpp dañuy ñëw di ko ànd ak ñoom kon nag ngeen xam ne daal sant suñu suñu sedd na sant na yéen bu baax a baax a baax kon nag dañuy ñaan rek euh, moom moom xam ne mooy suñu suñu waaju róow di suñu suñu Moussa Abdourahmane Lo dañ koy doolee ñaan rek yàlla dolli ko ay ngëneel dolli ko ay yërmande dolli ko ay tawféex ndax liggéeyal na liggéeyal na Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy te xam-xam bokk ci waaye liggéeyal na bàyyi na fi euh, liggéey lu ama am solo ndax ab dellukaay la ci Sëriñ Tuubaa ab dellukaay la ci Ahmadu Bachir ab dellukaay la ci yoonu murit kon nag euh, duñ ko fàtte mukk dañ koy ñaan rek yàlla di ko dolli ay tawféex te yàlla sàmm njaboot njaboot gépp njaboot na bu ñu ko waxee yaatu na waaye yàlla yàlla sàmm gën a sàmm njaboot gépp gën leen a dëgëral gën leen a yu leen di yóbbante itam waaw waaw ñu ñu ñuy gën a ñu ñuy yóbbante nag sëñ Xalil suñu xaadim ñu ngi gën a yóbbante ab nuyoo itam ci sëñ Bachir ah, mi nga xam ne mooy jëwriñ jëwriñ seen suñu saalum ah, suñu xaadim kon daal ngeen xam ne suñu xol sedd na bu baax a baax ah, fàttewul nag ñi nga xam ne ñoom itam dañuy jàppale académie bi ci waa ndax waat ci wàllu yu bari moo xam finance la yeneen ak yeneen bari nañ ñoo xam ne teew nañ teew ah, xaj na di tudd ay tur xaj na mën naa bañ a waaye nag ñu xam ne daal ah, am na loo xale ne bu ñu ko mënee dafa am ñoo xam ñuy jàppale ñenn ñi ci ñi ci ñi ngi fii ci dëkk bi waaye ñi ci ci bëree bëri nag ña nga ci bitim réew sax waaw kon nag ñu ngi xam ne fàttewuñu leen ñu leen di sant bu baax leen ñaanal di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay ngeen ci fay mbooleem ñi nga xam ñi ngi ànd nañu liggéey bi ci fànn guñu mën a àndee ak ñun ba ba ci ba bay ñëw di di ko di teew sax loolu lu rëy rëy la ñu ngi ñaanal ñëpp daal yàlla dolli ñu ay tawfeex dolli ñu xéewal te liggéey bi ñuy liggéey yàlla boole ñu ko euh, nongul te fay ñu te dencal ñu ko foo xam ne fu yàq fu yàq yëgut kon daal ngeen xam ne euh, xaj na duma am du ma am wax kat ma ba ba li ma bëggoon wax lépp mënuma koo ko wax waaye nag sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp suñu xol sedd na yëral leen yëpp jazaakumullah xayran ñu ngi sant bu baax a baax seen changement laaj ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañ liggéey bi yite yite yite ñi ngi ko jox ba waxtu bu nekk nga bàyyi say gi ñëw am koog ñun ak ak ñi nga xam ne ñu ngi def lu mel noonu ñoom ñëpp daal ñu ngi leen sant yëral leen yëpp jazaakumullah xayran Thank <laughs> you. mu nekkoon kàddu bu mujj ci ñu ko tërale ci jotaay bi euh, jotaay bi mu mujj ci ajuma ji ci weeru koor bi def ñaar fukki fan ak juróom euh, ci atum 1445 ñeenti junni wala junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom def ko bu fan ci weeru tubaab avril 2024 mat na matale na tamit muy ñaan yàlla nangu ñaan yëpp nangu liggéey bi yëpp waa académie bi ne nañ ko baaxoo koor gi jàllee nañ dënk ci benn document mboolem liggéey yi ñu defoon ci weer boobu jëppale ko kilifa yu mag yi nga xamante ne ci ndigal boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo